ñetti kàddu yu mujj yi nga jeexale lu ñu ci yemoon rekk mu doy sëkk ab yóbbal moom moo borom barab bi ñu bokkoon mecc sëriñ Mahmoudan yàlla ñu ko yàlla doole fayal xam naa nag li nga xam ne jotoon nañ koo tënkaat tuuti rek ci li si Ahmad doon wax day gën a jël waxtu rek daanaka du ko jarati te waxtaan wi mat na mat koo xam ne matale na matale koo xamante ne di ca dolleeti dara day gën a rekk indi ak guddal te koy jox bind la ca gën mooy bind bu yam bu mu mën a mokkal ba dellu siwaat nga door koo jox beneen bind waaye daal jàpp nañ ci ci ay mbir yoo xam ne jàpp nañ ne taalibe bu nekk war na ko bàyyi xel bu baax a baax fi mu tàmbalee wax na ne munta ñàkk ci ab taalibe mu ndekete mu jikkewoo ay teggin lu la neex wax lu la neex def loolu du ak murit ak murit nekkul ne lu la neex rekk wax wax walla lu la neex rekk def loolu si nga xam leeral na ci lu yaatoo yaatu yaatu wax nañ ni it wax na ne itam ñi nga xam ne ñoo àgg ca suñu boroom julli yu bari ak i woor àggale wu leen fa ay teggin moo leen fa àggale bokk na ci lim ñu jàngal ba tey yonente yi ni ñu sàmmoonte ak i teggin seen diggante ak seen borom mu joxe ci misaal ku ci mel ne Seydina Ibrahim Seydina Moussa Seydina Aïcha ñoom ñépp ak ñeneen ak ñeneen ba ci Xadir alayhi salaatu wasalaam wala radiyallahu anhu wax na ne itam alquran sunu boroom moo jàngal saxaaba yi jàngal jullit ñi naka lañu war a sàmmonte ay teggin seen digganteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu yaatal na ci lu baree baree bare la tarfau aswaatukum fawqa sawti nabii ak yeneen yu bari yi nga xam ne dina ko ci wax na ne itam ay teggin léeg dana jiitu jëfe ndigal mu joxe ci misaal Seydina Abu Bakar bi mu te lu mu tontu woon ku baax ki ci bi mu ko bëggee jox ndigalul jiite wax na itam taalibe bi ni mu war a sàmmoonteeki teggin digganteem ak ay waajuram sàmmoonteeki teggin ci lekk ak naan ba ci wanag walla sax jote walla sax seeti ku tawal ak yeneen yeneen yu bare bare bare bokk na ci lim joxe woon misaal ci Euh, sàmmoon tekki teggin ak ni ko mag ñi fonke woon mooy naan sax bu ñu ko daan def lu ñu taxaw di ko def dañuy egg suuf te loolu am na ci ñuy wax ci wàllu wér-gi-yaram ñu ko saxal ne naan di taxaw gënut ci ak wér kon daal ne dëppoo ak teggin foofu wax na itam ne Sëriñ Tuubaa daf ne teggin ñaari wàll la ñaari xaaj la teggin yi nit ki war a sàmmoonte digganteem ak boroomam ak teggin yi mu war a sàmmonteel digganteem ak mbokki minde moroomi mbindeefam yi moroomi mbindeefam yi moom sëriñ bi daa waxoon ci njalbeenuk nax yu xadaayil xaaj bayit woo xam ne da ca daa am solo loolu daa leeral lu baree bare bare wax ne teggin suñu boroom da koo def muy loo xam ne bu ko nit ki amee te rafetal ko doonte dafa bokkoon ci askan wu ñuy xebet wala mu doon ku xamut dara ku ko gis da koy jàppee boroom xam-xam bu réeree wala nga jàpp na ci askan ya ñu gën a taamu la bokk loolu leen la la koy may nit ki mooy leen ay teggin yu rafet Cheikh Ahmadou leeral na ci lu bare baree bari dañuy bañ a guddal rek tënku na ci lu bari waaye ngir gàttalaat ko ñi doon déglu ngir ñu mën a xam ne ab yóbbale ngi nii boo xam ne bu ñu yàlla dimbalee mënees na cee dunde ba dewee ak jàmm insha allahu taala xam naa damay jox sëriñ mahmoudan ibn cheikh mouhamadul bachir mu borom daarul mooti ci tuuru mbokk yi nga xam ne ñoo fi dajaloo yépp mu yëkkati ay kàddu ci seen tur ci lu tolloog ñett ba juróomi minute rek incha allah bu noppee sëriñ Ousmane dana wax ci tuuru daayira bi ci ab jeexal yóbbaale kàddug sëriñ maam Thierno ak kàddu sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne amoon na yéene mu mujjul jàppandi ci moom kon sëriñ Mahmoudan bismillah salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu bokk yi nga xamante ne ñoo fi teew yépp ak yi bëggoon a ñëw te mënuñoo agsi eh, kàddu yi eh, daanaka matu ko woon ndax ni ko sëriñ Mouhamed waxe sëriñ Ahmadou dafa mel ni li mu wax doy na sëkk bind boo xamante ne manis na koo yóbbal ba déwén te ku ne mën na cee jàngat lu baree bare ndax man bi muy wax sama xel yépp mi ngi ma jox sëriñ max moo Mahmoudan miñ ma daan waxtaane bi muy wax yépp dafa mel ni sëriñ max moo dan dafa toog sëriñ Ahmadou di wax di ko joxañ mi ñu ma daan jàngal li mu ma jàngal tey jii lépp jikko yooyu rek laa gis ci moom kon ku ko jël danga ci am lu la doy sëkk loo xam ne danga ko mën a jëfandikoo fii ci kër gi de sëriñ Basiru Antañ ak nee na sëriñ Mahmoudan àggoon na ci ay teggin foo xamante ne nee na ma sëriñ Abdoulahat xaritam la woon lool da daan ñëw fii di ko seet si di fi yàgg waaye nee na ma bu sëriñ Abdoulahat masaan ñëw ci kër gi day wax dongo yi tëral yépp ne leen li feeg muy génn kër gi kenn duutu wax ca kaw buñ la tëralee si bind ba noppi dangay dem sa néeg yalu ko ba mokkal ko bu Sëñ Abdou Lahad demee nga door koo tare loolu yaakaar naa ay teggin mënu koo mënu mënu koo weesu nee na ma it bu masaan ànd ak moom dem Daarul Muxti seeti Sëñ mu daaw bàll nee na bu toogee ci biir néeg bi ruq bi mu dàq ba toog fa nee na dañuy jekki-jekki sëñ Moodu ci boppam mooy laajte ne xanaa sëñ Mahmoudan dafay nekkul ñu ne ko akay ah, mu ngi fi waaye du wëlbati ay tànkam du ko xool du geestu du ko laaj kon na cee jàngat lu baree baree bari loo xamante ne yu bari la doomam ji nekkoon fii it nga xamante ne nekkoon nañoo moom muy sëriñ Mamor man gisoon naa ci ci moom lu baree baree baree bari loo xamante ne jamono yi ñu nekkee fii ci kër gi di fi jàng lu tuuti la misaal mu tuuti la rek waaye nun ñëpp buñ ko téye rek mën naa mën naa jàngal lu baree baree baree bare amoon na xeetu yar boo xamante ne sëñ Maamoor ci boppam amoon na xeetu yar boo xamante te booba kër gi nun ñëpp ci benn ndab li la ñuy sukk ba ci sëriñ bi yal yàlla guddal fanam te àggale ay mébétam yépp benn ndab la ñuy waaye sëriñ Maamoor bu añ bi masaan noppi benn ndab la ñuy tibb ku xamoon kër gi benn ndab la ñuy tibb ko ci néeg sëñ Mahmoudan bi mooy néegu ñax bii ñu def ci kaas bi tey ci biir tabax bi ndab li danañ ko tibb ba mu baax waaye nun nooy njëkk sukk ak moom nun ak moom ñooy njëkk sukk ci ndab li kenn ku ci nekk xam nga ñaata tibb nga ciy tibb te doo ko weesu benn bis boo koy weesu moo xam xiif nga moo xam mar nga moo xam regg nga wala régo tibb yooyu nga war a tibb bu jeexee da ngay jóg ñu jël ndab li joxaat ko sëñ Tuubaa Jóob ñoom bu jeexee ñu jël ndab li jox ko gone yu ndaw yi ñu àggale ko te kenn mësu ko weesu xolo boobu xeetu yar boo xamante ne daana ko taxawee fii ci kër gi fii te daawul daawul daawul daawul képp bépp donga bu ma sa nekk ci kër gi sëriñ Basiiru nee na ma sëriñ Mahmoudan bi mu nekk fii ci kër gi nee na ma mësta lu benn donga nee na ma donga yi fi daan jànge ni ab sëriñ daara di def buñ ne la donga sàngam si buru na nee na buñ ne la donga sàngam si buru sëriñ bi ne demal wool ma ko nee na sëriñ Mahmoudan daawul def loolu buñ ne ko donga sàngam daa wéradi sax moom mooy jógal boppam dem seeti donga ba wéradi xool ko ba xam lu ko tax a tëdd ku jara a faj la wala ku jërta faj kon mu mel ni bërëb bii nu defee lii béréb la boo xamante ne eh, patrimoine la boo xamante ne bu nu ko téye université la boo xam ne bu nu ko téye mën na noo defal lu baree baree baree bare ba yàqu gi xew ci àdduna bi nun war nañ cee mën a mucc ndax fii tey boo demee ci yoon wi nun ñi fi nekk yépp duma ma tudd benn tur waaye foo fi dem nit ka fa nekk la ñuy yaakaar ci moom ak la ñuy xemmeem ci moom te muy nit koo xam ne àdduna mësul ne ko cam ay bokkam mësul ne ko cam boo ko gëstoo génne na ci daara ji wala bàyyam génne ci daara ji ci addu ci àdduna bii nu nekk ñun ci yoon wi nu nekk te sañ cee wax koo ci dem nga xamante ne àdduna xeebu ko ay bokkam xeebu ko jaayul diineem jaayul ngorom boo ko toppatoo ay waajuram génne nañ ci dëkk bi wala moom ci boppam mu génne ci dëkk bi kon loolu nun ñii di ay xale te nekk fi lu nu war a téye la loo xamante ne kenn ku ci nekk waru koo sàggane dañuy gàttal rek eh, kàddu yi sant yooyu rek lañ amoon yoo xam ne war nañ ko ci yëkkati ndax béréb bii nun nu fee yëkkati kàddu ndax ab donga daara bu suufe lanu fi ab donga daara bu suufe lanu fi ndax Cheikh Mahmoudan lañ ñu tudde fii lañ ñu jànge lu ñu xam fii lañ ko xamee lu ñu man ci àdduna fii lañ ko mane kon lu ñu fi dikkee nun ab donga la boo xamante ne dañoo ñëwoon tey rek ci guddi gi ngir toog di diglu liñ fiy wax bu nu fi jógee ñu dem jëfandikoo ko kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Serigne Mokhtar di ko sant bu baax a baax ci taxawaay bi ak ni mu taxawee ci dëkk bi di sant ñëpp ñëpp ma di sàkku ci ñoom ak ñaan na ma ñëpp ñaanalal Serigne Mamour bi tëdd fii ci kanam jom ak jaagu jumaa ji fi dëkk bii kat bokk yi jafe woon na metti woon na lool mu jaay léppam bëggatul dara ci àdduna jaay alalam jaay dooleem jaayu askanam jaay léppam toog ci dëkk bi fii def fi ay sacrifice ba ku ne man fee nekk tey waaye ku ne xam na ne bi fi sëñ Mahmoudan di jógee jafe woon na trop waaye kenn te te kenn mësu koo jam li dëkk bi naqari naqari naqari sëriñ Maam Mor a mas a wax loo xam ne la muy wax ñëpp dañ naan accam wala mu topp ci nit bañ naan sëñ Maam Mor a topp ci nit ngir àdduna kenn mësu koo gis ci àdduna fii la téye ngorom ba lépp fekk ko fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. fii. kon ci turu sëriñ bi ak njaboot gi noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax suñ mbokk yi bàyyi koo daarul moxti te ñu gis leen ñëpp ñu toog nii yaakaar naa bari na ci ñoo xam ne tey fa seen waajur tëdd seen xol sedd na ndax ma joxe misaal ci sëñ Mahmoudan mii rek koo gisoon sëñ Moustapha may ne ko sag njaboot ña nga ca pencum kaso ñuy waxtaan ci wàllu teggin xolam dana sedd ndax béréb bii loolu moo ko sanc kon ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi muy sëriñ Moxtaar di ko ñaanal mu yàgg fi ak sëriñ Abdou Lahad ak turu sëriñ maam Thierno mi teew nga xam ne liggéey bi ñuy def ci seen ndigal lañ koy defe seenu jàpp ak seenu taxawaay ci daayira bi ba mu egsi fii sëriñ bi gis na ko te yàlla na leen fay eh, suñ mbokk yi daa jóge daarul man naan it at mu jot noonu lañu koy àndee ak ñun muy daarul man naan nga ca Touba eh, ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ndax seen bopp ngeen defal mboolem mbokk taalibe bu ci jàppit ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant sëñ du ci waxtaan wi waxtaan wi am na solo te jamono laaj na ko yaakaar naa xanaa ñaan yàlla rek mu defoon tawféex waaye liñ ci lim moom neexu la neexu matale lépp borom bërëb bii nag moom ku ci ràññeeku la woon sëñ Basiiru Kara Thiel muy sëñ Basiiru Astulo 1945 la fi nekkoon daf maa wax ne ma Sëriñ ma de moo mën a yar moo mën a yar asgor waaw ndax lépp dara du la wax dara lu naqari lu la naqari te fa mu bëgg nga jaar fa danga fa jaar loolu loolu loolu moom ko nettali kon li nga doon wax lépp dafa daf dafa ci ci ci jëm bari na jëf yoo xam ne bu ñu la teen nettalee ci moom da ngay daal di gis loolu dafa ñëw daarul man naan kësañ Abdourahman bi mu dikkee toogaay bi xaw a yàgg mu bëgg a soonu am ku ñod di ngegenaay li ci kaw lal bi jox ko ko mu ne ko delloo ko toog ci lal bi ak soonu ci ngegenaay li ñooy am yi ko sëñ Abdourahmaan mi ci Daaru Maraan moom sëñ Mahmoudan ay tegginam da ko topp ba bi bi muy wàccub liggéey nga xam ne mi ngi ci mu jëm te sëriñ mu daaw balla seet ko ci tawat ji wax nañu ne boobu mënula toog waaye dañ koo dimbali ba mu jug diju bi mu dijee noppalu tuuti door a wàcc suuf sëñ mu daaw balla door dugg si ay teggin mënta weesu loolu sëñ Fallou nee na ma sëñ Mahmoudan sëñ mu daaw bala daana wax ne sama bëgg ci moom mënuma koo takk waaw léegi sëñ siidim sëñ mu daaw bala nee na bokk na ci njabootuk sëñ mu daaw bala gi mujj tudd moom sëñ siidi sëñ mahamadan moo ko mujj a tudd nee na mbooleem njabootam gi ñu ci bare bari di tàmbalee 1950 nangam jëm suuf yépp sëñ mahamadan moo leen tudd kon kooku bu ñuy waxtaanee teggin ci mpéncam Euh, warees na ko bàyyi xel baax warees fii la si ko war a waxtaanee kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp lu ci waaye def yàlla na ko yàlla nangu te ful ko te fayal te fayal la ko boppam tey rafet nañ ci njort tey ñu fàttaliku li sëñ Ahmadou wax léegi te jéem caa teg suñuy tànk waaye lii ma gis léegi ci nun dafa mel ne yàlla ak yaali kon nañu ko bàyyi xel bu baax a baax ci wax ak ci jëf def teggin dafa dem ba ci wax dafa am ko tudd sëñ ma Masamba Kanni doom doomi sëñ Bousso bi la dafa soj toog ci wetu sëriñ bi daal di tissooli sëriñ bi ne ko yar ko la mu ne teg sëñ bi ne ko luñ ci war a teg mu ne ko li ci teg doy na <laughs> waaw waaw kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dañ ne woon sax du jar tudd gi waaye ndax. ñu waxoon ci Sëñ Ahmadu mi bi muy bëgg tàmbali ñu nag ñoom mu seq liggéey bi muy waa kër sëriñ Mouhamadul Habib daayira bu set ya fa nekk ak kër sëriñ Abdul Xudus ñu ngi fi ànd kooku ñun bu baax a baax di seddal mbokk yi daayira bi ci boppam mbokk yi fi nekk yéene ji ñu am ak royukaay bi ñu am ci seen waajur sëriñ Abdul Rahmaan ba tax bari loolu ay xasit